City Affairs lañ wax Banjul fii la lépp di xewee euh, si biir kër gi tey euh, dafa am loo xam ne dafa wër Banjul euh, ñëpp di ko waxtaanee mu doon loo xamante ne nit ñi rafetlu wuñ ko ñi rafetlu nañ ko wax la rek xam nga wax moom mooy jur wax soo wax daal il faut nga dugg si biiram nga mun a xam lan la firi ak lu mu ëmbar li ko tekki soo tey nag dama ànd suma benn broda si biir kër bi asalaamaaleykum nuyu naa la. waaleykum salaam ala fay eh, naa la. tey eh, nag moom ñu nar a fas yéene waxtaanee loo xamante ne moo lembe biir Banjul eh, di distribution food bu ñu nekk di gis nii mayo bi di ko def so ñu gis ne si biir distribution boobu wax bari na wax bu sew juddu na si ñi di génnee ay vidéo ñi di wax ay wax yoo xam ne dal na lu ne so ma bëggoon rek si biir loolu noonu ñu ñu xuus si biir waxtaan bi yow yow lan nga si xalaat si biir loolu noonu lu nit ñi nekk di def is it right or wrong waaw anyway uh, this uh, food relief package bi uh, initiative la bu jógee ci government bi so first of all nit yi dañu war a xam comme uh, fan la jógee parce taxpayers money si foofu la ko nguur gi jëndee pour uh, daal di ko jox ñi nga xam ne ne askan gi because relew leen mbir ne fu ñu toll nii aruna bi yëpp ñu ngay jooy si li nga xam ne mooy covid 19 bi mm-hmm. daanaka dëkk yu bari ñu ngi dugal li nga xam ne mooy state of public emergency mooy li nga xam ne yow su fekkee dangaa sa time bi dañ ko limit nguur ba la wax ne yow fi nga war a wala time bi nga war business premises time bi la liggéey di wàcce ñëpp ñibbi for that being the case nag ñu si bëri fu mu nekk nii ñu ngi dal di jànkuwanteel ay eh, jafe-jafe yu hmm. bari ba loolu waral na aduna sépp nguur yëpp ñu ngi dal di seet naka la ñuy dal di dimbale ñi nga xam ne rek ñooy seen doomi réew yi waaye since eh, eh, food relief package bii nii bu mu ñëwee comme noo ko waxee hmm. coow jóg na coow nag bu jógee dafa wara a jóg lu tax because nit yi fu ñu toll nii uh, at this point in time mm-hmm. uh, dañ soxla li nga xam ne rek mooy dundin especially ñi nga xam ne mooy single parents yi man loolu uh, moo dee dinaa toy suma xol because daanaka man fu ma dëkka maa fa dëkka ay single parents yoo xam ne man foog naa ne ñooñu yeeloowoon nañ bagage yi bu baax a baax a baax mm-hmm. before paquet bii nii di ñëw ñi nga xam ne ñooy Banjul COVID-19 sensitisation team bi Ah, dañ defoon sauvé dugga biir Banjul ah, xaw ma nag ndax laal nañ kër yëpp waaye dugga nañ man ñoo nañ suma kër ñu jël suñu information suñu details si everything so léegi ñu ne ñoom buñ paree dañ compile everything ñu seen ko central government so central government ñoom ñoo dal di def sélection bi seet ah, ñan la ñuy jox ñi nga xam ne mooy food package bii nii so dañ leen dee jox ay coupons mm-hmm. so barki démba Um, dama doon nelaw so suma jigéen yi kër yi call ma parce que maa ngi stay fii uh, eh, stay ma suma famille waaye ñu ma stayal daanaka dañ mel ni eh, famille leen si man uh, mhm. eh, fu ma jooyee ñu jooy am nga su ma amee baanee ñu bokk ko man am nga ñu celebrate ko so uh, ndogu bi moom every day ma ne duñ nangu ma jënd dara si biti anasana so dafa mel ni ñooñu suma famille lañ mhm. so ñooñu tamit xam nañ ne man maa ngi yëngu si li nga xam ne rek mooy youth activiste man maay vice chairperson bi Banjul Youth Committee te soo bàyyi xel euh, Banjul Covid 19 sensitisation team bii nii euh, ñu fa nekk mooy ñi nga xam ne mooy euh, civil organisations yi yu nekk fii nii civil society organisations yu nekk Banjul ak ñi nga xam ne ñooy Banjul Youth Committee bi so for bii being the case ñoom jigéen yooyu noonu buñ demoon fii nga xam ne mooy BCC dal di dem laajte lu tax ñoom seen tur euh, feeñu si li nga xam ne mooy ñu war a euh, njëriñu li nga xam ne mooy lekka yu ñëw nii saako maa leen sucré mhm. loolu sa staf si ñoom ñu kool ma ñu ne ma ah ñu ngi nii BCC de ñoo ñu trial seet naka nga a koolee ki nga xam ne mooy seen chairperson bi Issa because ah yéen ñaar am ngeen ko soo man lu ma lay am ma ne leen ne at this point in time man mënu maa kool Issa waaye naa leen jox na maam yéen ngeen kool ko so bu ko gaa yi koolee Issa si boppam mu ne ñëw na mu explainal gars yi so bu mu leen explainalee xam nga léegi-léegi explanation dafa laajte déggin. instant mhm. man mun naa nekk fii di wax di terre yow mu toog kër foog nga dégloo ma sa xel waaye bu ma dégloo sa xol. instant mhm. soo ñoom bu ñëwee ñu ne lu ñu leen wax ne mooy non government bi ñoom ñoo daal di select ñu war a am coupon si nii pour ñu jox leen bagage yi soo yéen seen name capture wuñ ko. soo bu ñëwee ñu ne ñun lu ñu jaaxal di only name bu ñu capture street John Street small street la foo kër la kooku dafa taxu even before the emergence of this pandemic so mm-hmm. how comes kooku ñu mëna capture ni mom bi ko xam taxu na ay 3 4 months before this crisis ñu capture kooku ni mom ñi bi nga xam ñoo dëkk ci koñ bi capture wuñ ci ñeen ci so ñu ñu né ñu expliqué leen né mané li ci nguur bi la jógee ni ak ni après ñu né ñu jox leen ben hotline number ñu né leen call leen ni ko gaa ko lay tin ñu am di NDMA National Disaster Management agency bi ñooñu expliqué leen né li ak li la fa demee ba ci biir wax jigéen ñoo wax nañ ma ñu né leen waa ñun sa ñu né ñun suñ amul suñ consulé yi lañ war a call ñoo ñoo ñu war a provide lii nga xam ne mooy package bi so mhm. lii moo ekkati coow li man nag dama nekk li nga xam ne mooy cyber warrior because some time ago dama attendoon li nga xam ne mooy training workshop on social media how to campaign online and li nga xam ne mooy fake news stuff bi understand mhm, mhm. so ever since that man su ma amee lu ma naxare rek dama ko def suma uh, mm, whatsapp status bi ma dem suma timeline bi facebook ma post ko fa parce que benn xel nit naa am ay different opinion ñu ma nekk di xelal so Lolo, xew bu loolu xewee ba pare ma jël suma téléphone bi dal di dugal facebook dal di dem post ko si waa Banjul groupe page bi te fu ma doon daanelee suma posé ma ne bugg naa kenn si yéen si ah, sensitisation team bi mu ñëw fii mu leeral ma comme affaire yi naka la fa demee mhm. because of ah, balaa ñoo sori tamit xam nga ma jaa jaajëfal yi team bi ay ndaw lañ ñu xarañ xam nga. Mhm. ñu ngi try ñu ngi def seen kéemtalaay kattan mhm. ah, gis ne daal xam nga since bu pandémique bii ni ñëwee ah, ñu bari seen nelaw doyut every day maa ngi leen a gis si town bi ñu ngi dem di fumigate around. understand mhm. di dem di conduct ay sauver yi nii. so definitely ñu ngi try te xam naa ne ñoom ñu fa nekk ñëpp ay ay ay ndaw lañ ñoo xam ne. comme they are very very vibrant very very dynamic. Mm-hmm. nasaana Banjul moo leen ñor ñun ñëpp Banjul moo ñu ñor. Mm-hmm. waaye soo loolu tam ma ne leen ne bu ko kenn am nga jële personal grievances or qualms understand so ah, lu nekk si man rek laay wax pour ñu ut solution seet naka la ñu a saafara leen mbir bi immediately ma bina poso dafa mel ni poso man si man. moo tàngal bu bëri coow bii nii yëpp man foog naa ne man suma pause bi moo ko yëngal. kon su ma defee suma pause bi ñeneen di ma counter di pause ñii di ñëw di explain di wax because dama si mention turi kansula yi. Mhm. because man jigéen ñi bu ñëwee suma kër ñu ne ma te ñu ne ñu sax ñun suñ a jox. Assane mel ni dañoo jéem a comme dugal lu kansula yi ñu leen ko wax xaw ma kan moo leen ko wax nag. waaye ñu leen ko wax mais bi dafa mel ni dañoo jéem a dugal lu kansula yi ah for that being the case nag so immediately after loolu man dama message kansula Mamour course ñun suñ site moom mooy suñ consulat mu ko message ci euh, Facebook inbox am yi ma expliqué ko yëpp nu mu ko génna leen ngeen waxa nit yi mhm. so after loolu bu mu xewee ñoom si team bi covid 19 sensitisation team bi ñu nañ ma ñii binda nañ understand explain nañ ma appreciate naa ko because maa gaa yi jaama rek lañ séexoo understand mhm. na so euh, recently démba ñëwaat naa dugalaat naa beneen pause so maa ngi attaque kii nga xam ne mooy suñ chairperson bi mooy Issa because man maay assistant am Mm-hmm. So because of this uh, COVID-19 sensitization team because I don't form like uh, NACOF ñun ñoo ko waroon a host Banjul. I mm-hmm. uh, ñu dem si diggante TV. li nga xam ne mooy uh, pandémie so mayor bi meeting even before that the non oote meeting. léegi-léegi ma attend meeting léegi-léegi du ma mën a attend because lu ma dee yëngu tam na dama dee teach ma fa jógee dama dee leen su ma suñ team dama war di xam nga rek set an example pour yeneen players yi bi so I have to waaye all the time du mun di attend meeting tamit léegi-léegi foog ma dem training understand pour ma inspire suma ah, teammates yi so noonu la fa demee last meeting bu mayores bi oyoon Banjul ah, City Council bi fii pour ñu pour mu yëgal leen ne dañoo cancel lii nga xam ne mooy nekkof bi lii moo tax Covid 19 bi so that day Isaaxa lu moomu ne that day la gars yi set up li nga xam ne mooy an uh, emergency team boo xam ne comme task force team boo xam ne ñoom ñooy Covid 19 sensitisation team bi comme ñoom ñooy dal di doxal comme nu ko gars yi di defee léegi si dëkk bi. Eh, mu don lu am solo ci sa bir wax ma deg eh, nga ne jigeene ñu ne eh, nañ dem si kan solo ci so turu lolu xamna ne yow chairperson nga assistant chairperson so ci bir lolu man dama doon te ndax Banjul City Council bi dafa am luñ jël jëmalé ko jox ko solo ci pour ñu distribuer ko nit ñi waaw ah, non man lolu dégguma ko te solo ay sen am na ñuy dal di ay audio mhm. ñi dal di génne ay vidéo di wal ne ñom seen uh, comme like dañ leen si seppi dañ leen si mm-hmm. seppi. Mm-hmm. so fooguma ne nag comme council bi jox na leen ay packages yoo xam ne pour ñu dem si seen constituency yi dal di ko jox ñi seen nit yi non fooguma loolu daal fooguma mm-hmm. loolu waaye tamit uh, di dal di dugga di wax ne lii nga xam ne mooy Banjul Banjul moo ñu ñor ñun ñëpp. because we have the city at heart man foog naa ne. Uh, dëgg su jotee rek nañ wax dëgg ñun ñëpp ñu dee benn yoon council yi dañ ñu fail. because ñun dañ leen votal pour ñu dem si council bi ñu nekk fa suñu mouthpiece ñun ñëpp duñ mën a dem si council bi always di fa jooy waaye council yi ñoo leen fóotal pour ñu dem si council bi pour ñu ñu fa ah, jooyal ñun luñ bugga xam comme su fekkee ne nit moo ñëw ne la ma ne la yow lii génne si sa loxo bugguñ la si yow sa constituency ndax kooku yow moo la fóotal ndax nit yaa la fóotal su fekkoon man la dama xar suma tànki tubéy ma ne leen ne bàyyi force dama see bokk même every day su dem sa gars di ma daxa dama leen wax déedéet man ma nit yaa ma ñor every day ma bokk koo ñoom xam so fu mu nekk nii Uh, uh, uh, COVID-19 team bi they are doing a very good job Man, mm-hmm. understand man as I'm speaking to you man tamit bëggoon naa ko si job boobu nonu. Mm-hmm. dal di play suma part dal di won nit ne man Banjul mo ma ñor because su mu nekk nii àdduna bi nyep, ñëpp ku nekk yow fo joggé mo la ñor mm-hmm. man Banjul la joggé Banjul mo ma ñor waye comme man bu gay Saturday team bi dama call suma ci ma man ko wa man man mënuma understand what's going on kan ngeen form team bi mu ne ma non suñu last meeting bi dama la call nga ne ya ngeen dem training so fofu len tok ñu dal di set up suñ team te lu ma jaaxal ñu ne ah, BCC in collaboration with lii nga xam ne mooy ah, CSO ak ah, civil society organisation yi ak Banjul Youth Committee bi ñoom ñoo collaboré ñu dal di form li nga xam ne mooy Covid 19 sensitisation team bi ñu dal di dugg si dëkk bi di dal di xamal nit yi di sensitise waaye man dama maa ngi laajte gars yi ndax bu ñu doon def meeting boobu noonu ndax CSO yu nekk Banjul yëpp a ñëwoon. <laughs> par a non ñëpp ñëwuñ toon pare nekkuñ na tam always lay am time. tamit di dem ateni meeting yi always maa moom loolu moo nekk suñu biif pare moom tamit am na si lu mu nekk di yëngu extracurricular moom refali la mhm. time bu gaa yi am training su fekkoon ne dafa coincide ak suñu meeting bi du ñëw meeting dafaa dem training mhm. so loolu mooy si coow bi so mhm. laajte naa ko mu explainal ma man waaye man dama foogoon ne following protocol su fekkoon ne dañ bëggoon a set li nga ne mooy covid 19 team dañu waroon a bindal leeta ñun PYC bi ñu xamal leen ne ah dañ bëgg a ngeen ñëw ngeen collaborer ak ñun. soo su boobaa ki nga xam ne mooy ñun suñ bi mu daldi oo li nga xam ne mooy elected executive bi ak li nga xam ne mooy constituency chairperson si mu oo leen ñun ñëpp ñu ñëw ñu toog. ñu waxtaan ñu seet ñun ñëpp naka la ñoo mën a ñëwee understand instead ñun. tamit ñu notify ñi nga xam ne ñooy yeneen CSO yi nekka Banjul ñu invite leen on board xam nga ñu daldi comme inbox yi stock bi waaye nonetheless ñi nga xam ne ñooy team bi dëgg dëgg ñu ngay try because ay ñu xarañ ñoo fa nekka mhm. gis naa ne bànjul moo leen ñor seen any activity any programme bu gaay def facebook dama leen di follow dama day comment xam nga comme euh, di leen comment di leen wax ne jàppaleen si dina mhm. dina baa barki ba rek kenn si ñoom dugal na post di wax ne gis ngeen sax nit yépp ñu ngeen ndogu seen kër waaye ñun mënu ñoo ndogu ñu ngi ñëw fii nii euh, mhm. pour dal di euh, comme sauver bagage yi ñu isil yep iya, pour ñi nga xamne moy ñun ah, suñ suñ suñ wax banjul yi pour ñu mun seen jëriñu loolu mo la won ne banjul mo ñu yor te xamna ne tamit banjul mo leen ñor si sa bir wa bala ñoo sori man man nga ne da nga dal gay way man ne la dal parce que yaa wax wax kan solo ci dañ féel nit ñi parce mhm. eh, que ñoom lañ fa taxawal mhm. way man dama jàpp nit ki soko pousser man man lay wax de man mhm. ku nekk ak no dee xalaatee ak noy man soma pusi nga pousse ma égasi ma raaj bi dama ci su su yàggoo su rek dama jappas suma loxoy duma la dal way dina ki yesuma loxo yi waaye tamit dama gis ne kan lay tam ñu ngi complain ne ñoom tamit ñu ngi dem di dem way duñ leen dé bolé ci dara nit ki nak amna ñeneen ni sen ngor mayit leen ñu la pousse di la bolé ci dara bolé wuñ la ci dara nga di ci bolé sa bopa ah, nit ku nekk da nga daw gàcce man ci luma xalaat ah, du ne dama ko wax pour against ken waaye tamit kansu lay tam ñom tam ñu ngi complain be comme ni nga ko ma ah, ki ni Modou Ba mu ngi génné vidéo di wax ne comme ni ñoo def bolé wuñ leen ci so lolu tamit sét ko fogu lo né ndax Euh, city council bi ñoo nekkoon di def seen liggéey wala si si councilor yi la. non councilor yi tamit dañu war a xam seen liggéey. Mm. dañu war a xam ne hey man lii suma liggéey la mu ne si euh, council bi mu ne mayoress bi mu ne any other person man lii dama koo def because man suma nit yaa ma ñor. Mm-hmm. bul fàtte ne council bi employé leen nit yaa leen votal ñu teg leen fa soo kenn mënu leen faa génne. Mm-hmm. xanaa next election nit yi vote leen out ñu génne fa so right now a Ansam, mm. ñom ñoo wara dem si council du taw ñu ne leen mu neex leen naari leen ñun li dañ sé bokk dañ sé participer because ñan ñoo sé jëriñu nit ya sé jëriñu ñu ñu votal ba paré li comme dafa nek package bo xamné mboka mbooka génnewul xaalis bi génnewul si poos ken kenn ñun ñëpp la génne suñ poos ñi ñoo dé fay tax xaliss boobu la gaay compile dina ko ay saxu malo saxu sukur bi ngi diwlin ak yena stops mm. dal di ko jox nit yi so yow so toogee nga téye sa bopam man sax dafa mel ni yow yaa féel da nga féel nit yi nit yi dañ la sànnil pour yow nga dem nga xeexal ñu man du ma a dem si council bi di xeex gaay di wax man dama war a am lii nii ak nii la fa war a demee. Mhm. foogoon naa ne council yooyu ñoom suñ jógoon àndoon ñi nga xam ne mooy team bu doon conduct survey bi. Mhm. mboga for example man xam naa ne man teaching mooy suma profession right now dem naa school dama school every month maa ngi receive doo am single ci fekkoon am suma famille maa ngi receive suma salaire waaye na single moo tax bëri ñoo xam ne ñu ngi fa nekkuñ dem liggéey ñooñu ak man kan moo dinaa yeeloo food relief package bi nii. ñoo ñoo ko gën a ñoo ko dinaa yeeloo soo a dem dugal si kër yi seet ñan ñoo yeeloo bagage yi. because waaye comme li nga wax ni kansulo yi tamit ñoom tam ñu ngi ne comme sauvé bu ñu doon def mm. boolewul leen si because man dama dégg la comme li nga ko waxee team bi they are doing a waaye tamit si biir loolu noonu kansulo bu nekk sa woot yaa xam ñaata ni a nekka nekk kansulo bu nekk sa woot xam nga ni ñi ak ñoo soxla lekka bi ñi ñii ñoo ko soxla comme tey yow soo nekkee kan kansulo su ma ñëwee ma ne la ne yow sa gox ñaata nit a fa nekka yow war nga maa mun a wax ñaata nit a fa nekka ñoom tam loolu lañ nekka di complain xaw ma ne understand nga fi maa waxee man soo ñoom tam loolu lañ nekka di complain lan moo tax jëluñ leen ñoom ñu def sauvé bi wala ñoom ñu ñoom ñu def li ñu war a def rather than ñuy pick uh, comme a team boo xam ne dañoo génn di def lii nii. waaw uh, the thing is ñoom Covid 19 sensitisation team bi ñoom dañ ne dañ def uh, def seen sauvé waaye man I doubt whether ne ñoom. like uh, covering the whole of Banjul. because of Banjul nekkul ne ay 4000 5000 households rek a fi nekka si biir sauvé bi tamit mbokk am na kër yoo xam ne soxluñ ko to be frank nag am na kër yoo xam ne tamit soxla nañ ko. comme ni ma la ko waxee rek kansula yi su ñëwee ñu siis leen puus leen ñoom ñëpp ñoo waroon a man ko because ñu ne mbooloo mooy doole. ne leen hey ñun lii mu neex leen naxari leen ñun dañoo ñëw bokk si lii by force because ñun ñoo fi nekkal nit yi te nit yi ñoo soxla lii lii si la moo dem. understand so ñoom ñoo waroon a taka seen tànki tubéy bem dang ne ne ñun lii lañ see boo bàyyi force mu neex leen naxari leen gars yi pare si nag up to any level yeah because suñ bàyyi xel yeneen region si am soo ne ñu ngee involve seen council yi mm-hmm. so why not ñun mënuñoo involve suñ council yi yeah